liggéey bi nga xam ni sunu maam waa kër Cheikh Issa Diène ñi ngi koy def ci ndigalul sëñ Abdou Latif suñu waa kër suñu maam Cheikh Issa Diène ñi ngi koy def ci ndigalul sëñ Abdou waaye nag ba tey ñu tuddee ko Serigne Balla Fally Dieng bis bi bis boobu nag di le 12 mars ca Ndakaaru mu doon bis boo xam ni mbooleem ñi nga xam ni bokk nañu ñoom sëñ Balla Fally ñi ngi leen ciy woo ci seenu teewaay waaye nag ba tey ñi ngi ciy woo ba tey ñi nga xam ni bokk nañoo ñoom yoon yi di suñu mbokki taalibe yi murit yi ndax sëriñ Balla Fall yi sëriñ Balla Fall yi mbooleem murit yi la ndax li sëñ Touba wax nii defar naa ko ki ñëwoon ci moom mu ni ko demal mu defar la ñoo ngi fas nag ci barkeb sëriñ Balla Fall yi moom yi képp ko fa ñëw wala nga am yéene te am ngant defar nga sëñ Touba defaran sëriñ Balla Fall yi ba sëriñ Balla Fall yi defaree yàlla boole nu ko defal ci barkeb Cheikh mu Moutaka mii nga xam ni moo fi nekk di sëriñ Touba ngeen jëf baleen maaq